Lamine Tamba maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi Lamine Tamba nga nekk chargé du suivi évaluation du mouvement des élèves étudiants euh, pour le développement de Ziguinchor euh, fan yi ngeen am problème par rapport ak seen logement bi ngeen am fii à Dakar ñu génne leen est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun largement fan la mbir mi commencé ba tey bailleur bi mujj leen a génne si immeuble bi ngeen dëkk si mbedd mi. Euh, d'abord ma lay sant di la gërëm ci interview bi nga xam ne moom nga ñu may ñu mën a wax ak askan wi jàllale li nga xam ne mooy naaj bi ñuy dund. comme ni nga ko waxee sa introduction man maay le chargé du suivi évaluation donc euh, mouvement des élèves étudiants pour le développement de Ziguinchor euh, comme ni nga ko waxee aussi encore donc ñun ñooy dund situation métti mi nga xam ne mooy situation d'expulsion yi situation bi mën naa ne ñaari at moo ngi ñu koy dund. mu doon li nga xam ne lu lu doy waar parce que problème la sur problème parce que 2017 la maire Ablaye Baldé jëloon immeuble bi donc euh, joxoon ko étudiants xam ne ñoo jógee Ziguinchor ñoo di jàngee Dakar donc 2017 ba léegi immeuble dox ay génération ñu ngi fiy jaar ñi ñaa ngi donc maire le maire Ousmane Sonko mu ñëwee aussi rapproché nañ ko ñu waxtaan ci dossier bi et tout moom mu ne carrément dina continuer di poursuivre di fay immeuble ñi xamal ko aussi ni que. différent bu ñu doon am ak maire Ablaye Balde mooy des retards de paiement ñaata retard de paiement kenn concevoir bailleur bi mënoo ko muñ te bailleur bi chaque fois rek day menacer et tout ça te loolu buy am rek loolu moo a andi problème yi am ak Ablaye Balde mais dañu toog constaté ni que loolu ñu waxoon ci affaire arriere yi moo ñu ñëw dal arrière ñoo na am ñu génn naxarlu ko le maire loolu métti ko bu ko méttee nag sur euh, ci colère boobu noonu la jëlee décision naan day dàkkal contrat bi remplacé ko ak ay bourse bu mu waxee loolu nag ñun yemuñu ci parce que bu muy wax loolu maa ngi rappelé ni que ñoo ngi woon deux mille vingt deux donc vers juillet comme ça alors bu mu waxee loolu ñu continuer di dox ay jéego dox ay jéego ñu ñëw ba décembre janvier deux mille vingt trois côté le premier ñu constaté ni que dafa istan ci décision bi ñu ne comme loolu arrangé wuñu dañuy génn naxarlu ko encore ci lañ dem Ziguinchor déloger étudiants yi élèves yi def ay mouvement d'humeur en tout cas organiser concert casserole dem ba ca ba di naqarlu li nga xam ne moom mooy dag daggal boobu mu bëggoon dakkal contrat bi remplacer ko ay bourse si la monsieur le maire dinaat le 5 janvier 2023 bu ma génn dafa ne bu ma dakkalee immeuble bi léegi rassurez-vous du ma joxe ay bourse léegi ce que je faire ñaar ba ñett moo mën a am ñu ne ko booy ban mu ne benn bi moom mooy ma tëggaat contrat bi ak bailleur bi mais nag bi yoon bu ma koy tëggaat man maa jël un agent municipal teg ko fa mu koy gérer étudiants yi dootuñuy gérer immeuble bi parce que étudiants yi boo leen bayalee immeuble dañ koy jël di fa def naka su dul noonu ñu ne ko d' accord léegi yow lan mooy seconde option bi mu ne bu fekkee ne bailleur bi nangul man ma renouveler contrat bi ak moom man damay uti beneen immeuble mais ba tey c' est un agent municipal qui va gérer moom mooy yor gestion bi. mais bu mu waxee lii nii ba pare maa ngi rappelé 5 janvier 2023 la ko wax ñoo ngi nii 2024 dara sottiwul ci li mu waxoon noonu donc est ce que ñun dañu nar croiser les bras pendant une année ñibbi Ziguinchor xam moom pendant une année muy réfléchir si renouveler benn contrat ñu door a donc situation mais te daanaka aussi depuis janvier deux mille vingt trois boobu bi moo tax janvier ba léegi janvier bii ñu nekk pratiquement euh, novembre sax la ko gëj a donc ça fait quatorze mois novembre deux mille vingt deux ba janvier deux mille vingt quatre pratiquement mooy nii fayu ko moo tax it euh, bi yóbbu ñu tribunal ak euh, mandat d'expulsion bi nga xam ne moom la ñuy mooy Ousmane Sonko bi nekk si kaso bi wala municipalité bi euh, moo bañ daal jël en charge immeuble bi comme ni ko Balde doon defee. waaw man maa ngi rappelé ni que municipalité équipe la am na maire am na ay adjoint donc munoo am plus de trente adjoint adjoint bu nekk am rôle bu muy joué loolu ñu tëj monsieur le maire rek dossier wara a bloqué ci municipalité maire bi tey instant bi moo ngi liggéey mais teewul maire bi moo ngi prison donc ñoom mënuñ jël justificatif boobu noonu pour wax ni que loolu moo bloqué dossier bi loolu moom kenn mënu ko dëgg naata comme ni ma ko waxee sànq rek même bu fekkee ci équipe de foot boo ko jëlee c'est pas parce que capitaine bi dañ ko rouge moo tax match bi day arrêté donc am na ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi fa te seen rôle doonul lenn li nga xam ne en l'absence du maire ñoom ñu def seen liggéey bi nga xam ne moom moo war pour dëkk bi continuer di dox donc ñoom mënuñ jël motif boobu ñu naan lii la donc monsieur le maire même bu fekkee mooy ci ay jafe-jafe ñu ngi koy ñaanal yàlla génne ko ci loolu parce que kenn yenewul kenn kaso mais daal bu weesoo lool jàpp nañ ni loolu warul mën a taaral dossier bi d'autant plus que dossier bi dafa doon urgent li nga xam ne warut a mën a taxaw fenn naate say ndaw nekk ci biti di fa fanaan depuis vendredi nga amoo lenn benn li nga xam ne liñ liñ koy layal lu dul xëy na le maire mu ngi kase ak leneen loolu defe naa du motif bu valable te dossier bi war na doon li nga xam ne lu urgent la lu ñu war a régler lu mu gën a gaawee. donc bi ngeen demee tribunal dafa jox dëgg carrément ki nga xam ni moom mooy bailleur bi moo waral ñu expulser leen. waaw tribunal bailleur bi damay fàttali ni que quatorze mois lañ ko amel bailleur bi lu gën a tax sax mu yóbbu ñu tribunal du leneen mais nañ ko fay xaalisam ndaxte ku toog quatorze mois fayoo ko kooku bu la yóbboo si yoon yow mënoo am benn dëgg ci kawam même si. bu ñu demee tribunal dañuy pousse affaire bi dañuy pousse ñu naan ñu le deux ngeen di ñëwaat ndaxte daa am ay dossiers yu tardé et euh, je pense que les greffes ñoom ñoo doon grève donc bailleur bi moom lu ñu lu tax ñu gën a yóbbu ñu mooy nañ ko fay xaalisam mais affaire génn bu moom du lu ñuy waxaale affaire génn bu moom loolu moom du leneen lu ñuy waxaale xaalis bi moo gën a tax te bailleur bi aussi moom boo xoolee am na raison parce que quatorze mois ku toog quatorze mois kay jotoo li nga xam ne mooy ca payoor boo ñu yóbboo ci yoon kay vraiment loolu kay am amatul leneen luñ ciy teg. léegi socialement Lamine Tamba naka ngeen di dundee mbir mi parce que métti na uh, gis nañ ñu génne leen seen bagage yëpp nekk si mbedd mi gis nañ ni ñenn ñi sax uh, ci mbedd mi la ñuy fanaan naka ngeen koy dundee exactement nga expliquer ñu. situation bi doy na waar façon bi nga xam ni. te bu ma ko essayé euh, tënk ci benn mot rek du dem wala benn phrase ndaxte mun naa ne si benn benn partie suñu dignité la ñuy jël nangu ko parce que kër bi nga xam ne yow moom moo lay sutural lépp li nga xam ne li nga doon def ci biir te yaa ngi koy def ci biti loolu munoo munoo munoo am benn moo bi nga xam ne ñu koy décrire parce que ñëpp xam nañu immeuble mooy Grand Dakar te situation bi fii dafa doy waar bu weesoo insécurité bi nga xam ne moom mooy agression yi ak yeneen yi ni mel mais côté santé aussi on est exposé insécurité totale li nga xam ne dañoo amoon asthme ñii du sot ak yenn feebar yi nga xam ne ñoom moo ngi làqu seen yaram sedd bi rek mën na ko yee te daanaka aussi ñëpp am nu ay jumtukaay yi nga xam ne comme ñi nga xam ne ay mbàjj ak yeneen yi nga xam ne mën na la musal ci ngelaw bu sedd bi ak yeneen yi poussière bi kenn xamul donc yooyu yëpp condition yooyu tey moom lañ nekk di dund ci biti te depuis quatre jours moo ngi nii depuis vendredi samedi dimanche ba lundi tey mardi bu ñu nekk nii aussi situation bu réglé wu lay on obligé encore de continuer à passer la loolu yëpp li métti li nga xam ni instant bi bu ma naree toog rek naan dama koy expliquer dina doon lu doy waar ndaxte génnee nit ki rek beneen problème la rawatina encore mu nar a nekk ci biti exposé wu nii à l'air libre vraiment c'est c'est compliqué et puis doy na waar. est-ce que bi mbir mi amee euh, ak image yi ni mu dawee yaram autorité yi est-ce que am na si ñu réagir boobaak léegi. te damay rappeler autorité yi daal même bu fekkee réagir nañu. ñun mu jotuñu benn appel. benn autorité woowu ñu mun naan ñu nii la wala nee la woon déedéet. xëy na nag dinañu génn di wax ci yenn médias yi tout ça mais ñun ñi nga xam ne ñun lay concerné ñun ñoo nekk di dundu métit bi amul benn benn je répète encore benn autorité bu ñu woo dañuy dañuy jéem a masaw wala dañuy wax dara ci problème ndaxte gis nga problème bu demee ba taxaw ñun dafa am li nga xam ne dañ ko cosaanoo même bu fekkee sax ñëwoo pour ne da ngay régler problème bi mais taxaw say rakk sentir ni que ah man de gis naa samay mag gis naa sama oncle wala gis naa samay autorité yi nga xam ne ñu ngi may taxaw ci lii bu muy métti mais autorité yi boo xoolee daanaka situation bi neutre total lañ ci def gisuñu kenn bu ñuy dund eh, jafe-jafe yi li nga xam ne instant bi eh, dafa situation bu doy waar expulsion moom nit mënul xam ni mu mel tant que dundoo ko moo tax ñu ngi koy dund nag avec la tête haute ñu si sant yàlla bu baax a baax parce que jàpp nañu ay jafe-jafe yi nga xam ne yàlla moola la teg ay natu la te ñun ñu ngi koy dund nag avec eh, la tête haute quoi ba rusuñu si dara et puis parce que jàpp nañu dañ koy def pour suñuy rakk te ñoom ñoo fi nar a ñoo nekk après euh, ëllëg loolu laa loolu laa la ñuy dund. nga appel boo si lancé euh, pour terminer. kii Lamine Tamba waaw loolu moom defe naa mënta ñàkk. même si en réalité autorité yi ñoom bu ñuy gis image yi rek ñoom waroon nañu def le pas ñëw seet ñu si lu ñu nekk nemmeeku vraiment état de santé bu ñu nekk mais teewul nag ñun see seen i rakk lañu seen i doom ñoo fi nekk donc loolu yëpp boo boo ko xoolee rek ñoom seen yaram war na si daw te jël décision yi nga xam ne moom moo war di leen wax ni que daal en tout cas fii daal ay ndaw ñoo fi nekk di ay ndaw yu Ziguinchor ñu war a servir dem suba Ziguinchor servir Sénégal servir Afrique servir àdduna bi donc ndaw yooyu noonu tey bu nekkee si jafe-jafe waroo xaar kenn ñi la si woo en tout cas daal ñun ñu leen di naan ni seen doom ñoo fi nekk seen rak ñoo fi nekk nañ leen ñëw wàllu bu mi nga xam ne ñu ngi koy soxla. balaa ñuy situation bi di gën a kon ñu ngi lay remercier bu baax a baax Lamine Tamba. merci beaucoup man maa leen di jaajëfal. may fàttali ni Lamine Tamba yow yaay chargé du suivi et évaluation du mouvement des élèves étudiants pour le développement de Ziguinchor jërëjëf ci disponibilité bi.